Sëñ euh, Fall Bousso Assane xam naa ci yow la ñuy daal di ñëwaat rek euh, ci bunt bi nga xam ne si yaa ngi ci woon di def constat maanaam fi nga xam ne foofu la jamono tollu tey nga xam ne bu njëkk euh, xale bi digganteem ak ki nga xam ne moo koy jàngal wegeel gi ci amoon ragal gi ci amoon bàyyi xel gum ko daan bàyyi xel waaye roy gum ko daan roy loolu ñu dem ba nga xam ne jamono dafa mel ne mbir yi dafa dëpp nga xam ne léegi ragalatu ko faaleetu ko dégg nga dem ba di ko fexeel sax ak di wuti ngànnaay ak lu mel noonu di jëm ci moom mu mel ne kon euh, dañoo bëgg a doya xam-xam wala gone yi ñoo xamatul xam-xam euh, lan la mën a jëriñ nit ki wala fan la leen mën a yóbbu wala ban représentation la am ci ñoom mel na boobaa nag bu ñu ci tolloo dafay aada ñi dafay aaja ñi nga xam ne te yow mii bokk nga ci ñi tasaare xam-xam ñu xoolaat système bi nga xam ne moom la ñuy jàngale est-ce que jotul nag ñu xool système bi nga xam ne moom lañuy ñuy jàngalee jamono ji ci ndax système bi baax na ndax dañ ko war a continuer ba léegi wala dafa am lu ñu ci war a soppi wala dañ ko war a fi jëlee carrément indiwaat beneen système lan nga jàpp ne mooy solution bi nga xam ne dana tax école sénégalaise école bu Sénégal euh, mën a tegewaat ci yoon nit ñi mën a wóolu ko bu baax a baax muy wayjur yi ndax ñoom it dañ ci am responsabilité bu rëy rëy mooy que ne sa doom boo ko amee obligation la ci yow pour nga jàngal ko loolu kon yaakaar naa ñi nga xam ne seen waajur jàngalu leen woon bi ñu màggee gis nañ léeg-léeg mere gi ñuy mere seen wayjur euh, ci wàll googu mu mel na kon daal système bi war na koo xoolaat bu baax a baax a baax a baax ba nga xam ne gone yi dañ mën a gisaat seen bopp ci système scolaire bi maanaam ci njàng mi jàngale tamit des leen mën a saytu bu baax ba li ñu bëgg mu dem ci gone yi mën cee dem waaw jërëjëf euh, sëñ Modou Kébé ñoo mm-hmm. ngi rafetlu bu baax kàddu yi fi jot a mm-hmm. Mm-hmm. leer naa ñi xëy na tënk na jotaay bi ci fànn yu bëree bëri xëy na sëñ Gana ñëwoon na ci ne am na baat bu ko jaaxal mooy li bi ne nañ jàll ci sëñ bi dara uh-huh. gu sëñ bi jaaxal na ko uh-huh. <laughs> waaye tam njëkkoon naa dégg ci discours boo xam sëñ Mountakha moo ko def mu ne woon uh-huh. dégguñu sëñ bi dunduñu sëñ loolu tam ba tey waxam la dëgg la loolu kon dafay tegtal ne kon dafa taxaw dafa jot ñu def taxaw seetlu kon dellu sëñ mooy kii jàng ki ñu jàngal nañ dellu ci moom sëñ bi kii jàngale dellu sëñ bi hmm. commerçant bi dellu sëñ bi képp ku nekk fa nga nekk barab ba nekk nga dellu sëñ bi xool la sëñ bi jàngale ci la ngay def hmm. nga jëm koo jëfe noonu hmm. yar bi dafa am lu mu ci jàngale xale bi ñu yar sëñ bi am lu mu ci jàngale ci moom moo def naa waxtaan ci ñaar lañ ko tënkoon benn bi mooy li nga xam dafay ñëw ci xale bi di ay avantages yu ñëw ci moom ak li nga xam la yoo xam ne dafa war xale bi képp kuy jàng mu ñëw ci yow te loolu ci nekk sëñ bi daf cee wax xëy na dañoo njëkkoon nañ dugg ci xaaj bu njëkk bi te ñu woon ci xaaju ñaareel bi mhm. eh, dégg sëñ bi nag xëy na moo jafe mhm. dund ko door a te duñ ko déggul duñ ko mën a dund mhm. mooy waral yu bare bari nag eh, du mën a leer suñu bopp bu baax a baax waaye li nga wax noonu fi ne ci dégg sëñ bi ci la bokk mooy ne eh, sëñ bi bi mu ñëwee xëy na ñëw na ci biir waxtaan wi lim njëkk a def mooy soppi système ndax fekkoon na fi ay jàng ay mm-hmm. fekkoon na fi programme bu ñuy jànge mm-hmm. waaye bi mu ñëwee ne rabbi ashaabaka bil bil himma mm-hmm. wala turabbihim bi dars faqat ji ñu leen sax ñu ne faqat ji bokku ci waaye même bu ñu dañ koy déggaale ci biir mooy yaral ñi ngay yor yor leen ci positif bu kawe waaye ci am njàng kese loolu mooy ne tey ci système bi ñuy def léegi ñun dañoo gëm ne léegi njàng moo mënta gis xale bi ci boppam mooy mooy mooy mooy centre njàng mi mhm. lépp ci moom la war a delsi lépp ci moom la war a delsi moo tax kon avantage bu ci nekk ci moom la war a delsi njariñ bu ci nekk ci moom la a delsi mhm. xam-xam bi ci boobu sax ci xale bi la war a balee ah. mooy ne léegi métier jàngale ka dafa nekkatul métier koo xam da ngay ñëw di wax rek ni kii ah. waaye métier koo xam ne nii euh, boo dee xalaat tamit mag dañ koy de maïeutique maïeutique mooy koo xam ne nii lii kuy rewle la muy def ah. ki maanaam soxna si rewle tool diggante ki koy rewle la muy def xam nga da ñëw da nga koy dimbale ngir xale bi génn waaye mënoo jël place am ngir génn xale bi kii jàngal tam liñ sàkku ci mooy nga ko ngir xalaat ji ne ci moom mën génn mën koo jariñoo mm-hmm. loolu lañ soxla ci jamono ji ñu toll noonu système boobu nag xëy na moo ma xaw a manqué mm-hmm. lay jël rek nii lañ ñu ko joxe woon ñu joxe la ko noonu mm-hmm. bu ko defee loolu xale bi du ko mën a reesal ko war a ci biiram moo tax na kon sëñ bi gëm nañu ñu bu ñëwaatoon jamono ji toll ni li bi njëkk a def mooy xalaat système bi ñuy jàngale programme bi ñàkk dama xoolaat man gëm naa ne nit ñi jàng diine ji jàngale joxewul li mu war a joxe mm. école publique yéen waxaale ko école lay bi moom kenn nga xam ne joxeetu dara mm. waaye même ñun ñor école mu war a joxe joxewu ndax mooy lu ñu kon jàng diine ba pare nga ko mel mel nu ko ne njàng mi ñun ñi yor diine ji ko jàngale am na lu des mm. te nag njàng mu mën di doon bu bay jeexit jeexit ja kon du taxut ñuy wax njàng jeexit ne mën naa nekk jeexit ju baax mën naa nekk jeexit ju mel nu war a mel waaye il faut que mu bàyyi jeexit mm-hmm. kon bu ñu la jàngalee te ñu lay jàngal bàyyiwut ci yow jeexit maanaam zalika mooy kon njàng ma dafa échec loolu nag moo feeñ ci système bi ñu yore nii. feeñ na ci tam ci nit ñuy séddalikoo ba léegi. léeg-léeg nga ñaan njàngum diine ak njàngum àdduna sëñ bi def naa ne loolu jàngale wu sëñ bi xam-xam la jàngale xam-xam rek la dem leen sàkku ci xam-xam nag bu àdduna bi ci biir bu diine jàng ci biir ñoom ñaar mu ñu taxali ko tam nag léeg-léegi ñu xaw a ñàkk a dégg euh, xam-xam bu am njëriñ xam-xam bu am njëriñ fi laqiqa mooy lépp loo xam ne nit mën na ko jëriñoo ndax boo demee ci maxaaliqu niran bind na ko fii mi ngi wax maanaam wasaani nafu xalq si jalaal moy li tax ñu war a sax xam-xam mooy jëriñ nit ñi kon nag lépp loo xam mën naa jëriñ nit ñi nañ fexe ba gëm ne ci xam-xam bu am jariñ la bokk tey mënuñoo taxaw fii ne lamp yi ñuy leeral xam-xam ba mun jëriñ kenn mun ko wax micro bi ma yor di ko wax ñëpp di ko dégg ma tax xam bu mu jëriñ la pourtant moo ne leen mën naa am sax aay newu ci xadis newu ci waaye xam bu am njëriñ kon loolu il faut que ñu di ko bàyyi xel mooy ne xam-xam bu am njëriñ tekkiwul rek ne xadis ba ay alxuraan kenn werentu loolu moo ci jiitu waaye na xam-xam yi ci des tam il faut que ñu dellu si ko dugalaat ko ci biir te loolu defe naa ne sëñ bi wane na ci aw yoon woo xam ne ni xëy na ba mu daaw ko jàngale théoriquement waaye pratique ba ko daan jàngale moo tax bu ñu delloo ci warteef yi nga xam moo war kii jàng mën nañ ko ballu ci téere sëñ bi yu bëree bëri maxaaluxu neraan mën nañ ko fay tibbee mën nañ ko tibbee ci xoqa mën nañ ko tibbee ci euh, kon kaatiman bi euh, sëñ Fallou Gallas doon wax kon kaatiman bi man gis naa ne ko sëñ Fallou Gallas waxee maanaam dafa nekk loo xam dañ koy jàngal ñëpp ñu di ko xam ndax nenu war a régler jàng lépp mi ngi ci biir ci biir sëñ bi dana wax ne eh, fal laa yox laa yoxtaa li man yaxsha tawa waaye nag xiifal ak nangub xiif dañoo bokkul ñu lay xiifal ak nga dafa bokkul léeg am ñoo xam dañuy xiifal nit ñi te xiifal boo warul sëñ bi boo gis ñu naan la léegi yenn yi tuumaranke yam ci loolu mën naa deñ maanaam dañ lay tuumaranke loo ngir jàpp ne tuumaranke dafa bokk ci yar bi te fekk na yan nit ki mën naa yaru te tuumaranke na ci moom loolu maanaam système yu bëree bëri gis nañ ko nit ñi di ko dund te muy joxe lu baax a baax kon kun gàtti man boobu yaakaar buñu ci dellusi woon tënk ko Euh, li ñu war a soxlawoo système bi ñu war a gis ne moo war a joxe li ñu war a am solution dina ci feeñ bu baax a baax man naa comme sëñ Fall woon na ci lu daan ma ci tudd bayit yu baree bari waaye rek dinaa ci tudd benn bayit boo xam ne ni tey li gën a yàqu ci système bi ñu koy jàmbat moo ko yàq te mooy li am ci biir daara yi wax nañ ko ay yoon yoon xale yi léegi boo gisee yenn yi xew dafa am yu bari yu dugg ci biir daara yi di soppi xale yi bokk na ci yooyu nag jaxasoo bi jaxasoo diggante maanaam góor ak jigéen loolu dafa bari loo xam ne nii moom moo moo am ci sunu daara yi te bari li muy yàq ci njàng mi ndax xale yi bu ñuy jaxasoo jaxasoo googu ñuy jaxasoo day dafa seen xel yu baree bari te foofu la yëf yi tàmbalee xëy du neexal leeral lool waaye ni ko sëñ bi waxee naa el kawaaxi ba wal xawaani loolu mooy ne koo gis njàngam yàqu bari na koo gis njàngam yàqu loo ko yàq mooy xam moroomam diggam ak moroomam xam moroom so dee su mam ñu ko waxee daal xam moroomam mooy yàq am njàngam te loolu li ko indi mooy jaxasoo bi ci biir njàng mi kon defe naa ne système bi jiitu mooy bu nu mën a fexe ba séparation boobu di am bokk na ci li koy li koy li koy li saafara bokk na ci li indi sikki-sikki itam mooy léegi li ñuy wax am ñoom dafa commencé di dugg ci biir école yi ñëpp xam ko tam xam nañ ne am na fi ay sachet yoo xam ñaar fukk lay jar dañ koy defar di ko jaay xale yi détail am ñoo lay ne ci biir xale rek dañ koy jël day soppi seen xel te nit ki bu xelam xasee soppiku lu mu mënta def amul bu yàggutoo njaay rek jàpp nañ fay nit yoo xam ne ni ay fowukaay lañ yor comme pistolet wala xale yi ñuy fooye xale yu ndaw yi ñuy fooye dañoo def am ndox ci biir moo xam ne ni boo ko jëndee da naan ndox mi jël kii bi ko fooye ndekete ndox moomu dañoo def alcool moo ne ci biir lool ñu xam ko mu ne ci biir système bi loolu nag mooy jur xale yu bare bari léegi dañuy soppiku soppi googu nag mooy indi yàqu-yàqu ci biir njàng mi kon yooyu yëpp nag buñ ko xoolee tënkaat ko mooy delloo si li sëñ bi jàngale mooy boole yar bi ak njàng mi te yar mooy jiitu jàng loolu dam xëy na duñ ci bàyyi xel ñu baree bari yar mooy jiitu jàng nit ki dana dem ba am juróom-ñaar ñu door ko dalal jàng waaye nit balaa judd lañ koy tàmbalee yar kon yar mi ngi tàmbalee nit ki balaa judd bu fekkoon te delloosi nañ loolu xool nit ñi war a balaa sey ba fasu nu xool foofu bu noppee xale bi bu juddoo rek ñu jël ko ci misaal tey xam nga léegi mbir mi njëkkante la ndax ñiy yàq ndaw ñi lañ soxla ñiy defar tam ndaw ñu lañ soxla moo tax njëkkante la léegi boo gisee tey ñoom xale bu amee ñaaraat rek ñu daal koy jël wutal ko ay barab yoo xam dañ leen fay saytu ba keroog ñuy mat a dugg école ñu dugal leen école loolu ñun kenn dañ cee war a jiitu te te loolu sëñ bi dafanaa mooy nit ki bu juddoo rek ñu récupéré ko maanaam bu xamee xamee ñu récupéré ko bu ko defee ba keroog muy dal jàng diggante boobu ci la yar bi commencé mi da koy fekk ci yar bi kon xëy na li manque ci njàng mi dëgg-dëgg mooy yar boobu ñëpp ñëw nañ ci te yar boobu nag dafay jiitu njàng mi bu ko jiituwul bu ko njàng mi fekk see day tax xale bi fekk commencé naa xam la nga xamoon njàng mi da koy yokk waaye du ko wàññi bu fekkee dañu laay dugaloon ci système boo xam ne nii yar boo xam ne nii yar bu baaxutoon boo xam amee xam yar boobu day gën a fës waaye du wàññi kon xëy na loolu yenn la ci yi nga xam ne nii buñ ci ñëwee yób médecine ci tënk foofu kon daal ñetti xasida ngi yoo xam buñ ci delloo ku ci dellu ku nekk euh, danga nga mën a gis ne man nga cee jël li war ki nga xam ne nii mooy jàng obligation yi ne ci kawam bi njëkk ma xaaluqu ne lan bu fekkee xëy na du ko jar ñu ci ñëw ci bëyi di ndax ñu bare bari jaar nañ ci lu mel ne kon kaati man du jar ñu ci dellusiwaat moom itam ñu bare bari ñëw nañ ci waaye ci nax ju tam ba tey sëñ bi bind na ci ay bayit yoo xam ne ni euh, buñ ci woxoon benn rek wala takun lin naas sastima wala si hum fihi min nisa loolu tey ñiy jàng ñu baree bari bokk na ci leen di yàqal mooy occupation yu bari da ngay nekk élève ba pare lépp lu xew ci àddina bi nga bëgg caa bokk la ñuy xëccoo ci àddina bi nga bëgg caa bokk sëñ bi nag ne la loolu boo koy def njàng mi du sotti moo tax léegi école boo dem da fay fekk ay groupe maanaam bu ma ko a wax maanaam groupe bu nekk am nga fa ku la ku la fa jëmmal ci école boobu activité yooyu di xew ci biir tey dugg ci biir école bi nag bari na lu mu yàq ci école ba tey kon yenn ngi yenn te ngi ñooyu daal yoo xam ne ni yaakaar naa bu ko gënee yaatal danañ gis ne kon sëñ bi dégg gi moom moo war gi nag mooy mbind mi la jéem a xam jéem koo ballalu ballalu dégg nag mooy nga mën a xam li ci diggante bind lu baree bari boo koy lii ci xaside yi ci bindi sëñ bi maanaam sëñ bi du ko wax directement waaye da nga koy ballalu ci biir xaside yi ci misaal tey mu jël lu mel xaside ma la war foo sëñ léeg-léeg da dégg ñun Eh, sëñ bi wax na ko par dana ay ñaan la ñaan li nga ci war a déggee mooy nit ki li nga bëgg moom moom ngay ñaan li nga bëgg moom ngay ñaan kon nag jëmmal gi mooy tax eh, loola maanaam te jëmmal gi nag ñun ñi nga xam ne nii ñoo koy dund ñun la war kon yooyu yëpp ay tegtal la yoo xam ne nii dafa laaj ñu gën a déggaan njàngum sëñ gën koo nafaraat mm-hmm. gën koo génnewaat tam ci yenn dimension yi ñu ko teg rek mm-hmm. xam ne lu yaatu la ñëpp ñëw nañ ci ñaa ngi mi lépp dafa lépp dafa ne ci biir léegi nag mu des nun koy jariñoo mm-hmm. loolu nag contexte bu nekk dañuy xool lam laaj mm-hmm. nu xool la ca sëñ bi jàngale nuñ ko ca mën a ballaloo ñu jéem koo jël ngir jëfandikoo ko bañ koo yamale rek ci ne moom fii la ko waxoon fii rek la yem mm-hmm. misaal ma jox léegi mooy xam-xam am njariñ boobu il faut que ñu yaatal ko suñu imam il faut que ñu yaatal ko xam ne <laughs> lépp lu ñuy soxla woon uh-huh. dañ ko war a jàng uh-huh. wax nañ ko barki démb rek tey fii ku fi dem hôpital. Mhm. di soxna. Mhm. da nga am lu la naqari. ndax nit dañ la tiim koo xam ne nii bëggoon mu tiim la. loolu xam nañ ko. Mhm. léeg-léegi kilifa nit dana ko tiim koo xam ne nii toon mu tiim. dëgg la ci léegi nag loolu ñun bu ñu amoon tey ñoo xam ne nii suñu nit la ñu formé leen. bu ñu la tiimee doo am lu la naqari. tey suñu jàkk yi ñuy tabax. danañ tabax jàkk ba noppi nga xool jàkk am ci la naqari. décoration yi ñu ciy def rek am na ci yoo xam ne ay la. <coughs> te culture bi mu yor mhm. du suñu culture moom daf ko jege architecte boo xam ne ni fa mu architecture mhm. mën naa am beneen façon architecture la boo xam ne ni moom la ñu war a décorer yow boo ko architecture islamique dafa am mhm. loolu bu ko doon jàng am ñu ci formé tey jumaa bu koy tabax lépp lu ne ci biir boo ñëwee doo am lenn looy lenn looy jàmbat lenn looy lépp loo gis loo xam ne da gis lépp xam ne ni islam daf koy nangu gis la boo xam ne gisin la boo xam ne nii dafa war a yaatu mm-hmm. moo tax lépp ñuy sos muy ab jàngu mm-hmm. nan bàyyi xel yaatal googu mm-hmm. mënu cee ñàkk ba tey itam sëñ bi tam ci la bokk mooy bu kenn ku nekk jàpp ne maanaam sëñ bi rek moo war a sosu jàng ku nekk ku yàlla mën la ku nekk war ngaa sosu jàng fa nga nekk ci misaal tey ñun ñoo ngi ci dëkk bii di Touba ku nekk xam na ne sëñ bi université bi macha na mat na lépp waaye nag xam na ne waa Touba mu ñu université bi kon ku nekk koñ ba nga nekk warteef la bu fekkee dangaa ngaa dellu sëñ bi mooy sëñ bi sos gi mu daan sos daara kon warteef la ñu nekk ci koñ boobee ñoom bu ñu delloo sëñ mooy ne war nañoo sos daara ci koñ te moo am na fi moyen yaa ngi fi mhm. waaye moyen yooyu dañ ko def foofu mhm. ndax dañuy jàpp ne foofu yitteelu sëñ bi ba ma koy tëjee mooy léeg ñu ne la sëñ bi bi mu ñëwee dafa tas daara dafa gis ni xam-xam li mu bëgg xam-xam mënu loolu dem wax dëgg yàlla ñàkk dégg sëñ bi ndax loolu bu ñu ko xoolee dëgg-dëgg histoire weddi na ko mhm. xel nanguwu ko taarix tam dëgg wedd na histoire histoire ndax ni ko histoire weddee mooy lan mooy ne eh, mësuñoo gis maanaam maanaam ni ko histoire weddee mooy ne daara yi nga xam dafa sos ci yoonu murid boo fa ma daaru alimul xabir wala nga jël daara sëñ Mbàkke Bousso nga jël daara maam Cerno yooyu yëpp mi ngi sos gannaaw déclaration Mbàkke Kajoor bu fekkoon kon sëñ bi dafa tas daara yi kon mënut a tas daara yi pare daara yooyu di sos te daara yi ku nekk xam na ne ci ndigal sëñ bi da taxaw kon benn ngi noonu mhm. bi ci des mooy li sëñ bi imaam wax léegi mhm. li sëñ bi li wax ci xam-xam lépp ak ku dox seen diggante xam-xam mhm. sëñ bi mën ta wax loolu ba noppi wëlbati ko di di gàllankoor kuy jàng loolu tam kon loolu déggin la ci kii bi beneen bi koy wet dem mooy ne ñi sëñ bi yar gisuñ ci kenn koo xam ne nii ku jàngutoon la mhm. analphabète amu ci ku ci da ngaa jàngoon ba dañu réer mhm. ba mhm. door a ñëw am nag loo soxla loo xam ne nii mënuloo ko sa bopp sëñ bee ko mën nga door a ñëw sëñ bi kon kon ku nekk ñoom da nga àndaale dañu réer ah. door a ñëw sëñ bi am ah. sa bopp mm-hmm. moo xaw a jafe mm-hmm. na loolu nag liggéey la boo xam ne nii mm-hmm. eh, lu ñuy ball lay doon ah, donte nag ñëpp mën na cee bañ a dëppoo waaye mën mën cee bañ a dëppoo waaye daal noonu lañ ko dégg ñun maa ngi jégalu wasalaam. d'accord baax na jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Fallou Boussa Sane ñu ngi koy santaat bu baax a baax euh, sëñ Lamine.